KMTV seen chaîne YouTube bu leen indil ay xibaar yu wóor te su la yàlla bëggee nag danga nga war a dimbali sa bopp bëgg sa bopp waaw walaw tara bu ñu gisoon yow Muhammad walaw tara boo gisoon yow Muhammad is wuqifu gaañ ba ñu leen taxawale ala naari ci buntu sawara ey boo fekkoon loolu gis ko fa qaalu ñu tàmbale di wax xam nga sawara ku ñu fa taxawal dinga wax de gaay yi bu ñu la yeewoon rek teg la ci pindu teen bi te daanoo goo lu loo xam di ko wax dañ laa bëgg daaneel ci biir teen bi ñu jagat jagatee la yëkkati la teg la ci pind bi sànni ko ñu la loo xam di nga ko wax waxuma laa sawara gis nga ni ñu yàlla defale kumpa ci sawara nañ ko sant sawara ëpp naa gis yàlla bu ñu ko gis is wuqifu ala naar fa qaalu ñu wax ñoom ñooñu nekke woon konor yi ci àdduna def lu leen neex ngir am nañu alal am nañu pouvoir weddi nañu yàlla utal nañ ko bokkaale weddi nañu muhammad weddi nañu alquran ay boo gisoon ñu taxawal leen ci buntu sawara yaa laytana seen wax mooy anoos bi ñuy njëkk def mooy yaa laytana yàllante koon ñun nu raddu ñu delloof ñu àdduna ñu delloo ñu àdduna ey ey yàllante koon ñu delloo ñu àdduna waaye nag day fekk mbir mi egg na ci cëppaandaw li dellu amatul yaa laytanaa nu raddu yàllante koon ñu delloowaat ñu ci àdduna wala nu kaziba suñ delloo woon dootuñu weddi bi aayaati rabbina ci kéemtaanu suñu borom suñu delloo woon àdduna nii ci taxawaay bii ci buntu sawara waat nañu ne dootuñu weddi aaya yàlla yi est-ce que loolu am na njariñ sëriñ Thiaw loolu amul njariñ de yaakaar naa yal nañu yàlla delloo ey bu ñu dellu woon ci àdduna dootuñu weddi waaw waaw wala nukadiba nuraddu naxnu wala nukadiba bi ayaati rabbina wa nakuuna su boobaa ay suñu delloo woon àdduna dootu ñu weddi aaya yàlla du ñu yem foofu sax wa nakuuna min almuminina daañu bokk ci ñi gëm yàlla allah <laughs> allahu akbar kon lii ku ñu ko wax te deewagoo yow mi koy firi fekkee tafsiir bi di ko seetaan wala di ko déglu ban taxawaay nga war a am taxawaayu bañ a am rëccu bi ñii amoon démb ndax yàlla nee na seen film bi ñoom nii lay demee acca yéen a bokkaale woon kaay leen buntu sawara ñu taxaw ñu ne cey bu ñu delloo woon ci àdduna dootuñu weddi alquran te daañu bokk ci ñi gëm yàlla kon yow mi fekkee alquran gëm ko jàng ko xam ko jëfe ko nga mucc ci loolu waaye yow mii dund gëmal yàlla nga mucc ci lii kon gëm yàlla ak gëm alquran moo la mën a muccal ci wax ji ñii wax boo wedde yàlla dinga ci bokk boo weddee alquran di ci bokk waaye boo gëmee yàlla gëm alquran mën ngaa mucc ci yërëmtalu bii wala nukadiba bi ayaati rabbina wa nakuna min almuminin ah. bal li fi ne badaa feeñ na lahum ñel leen maa kaanu yuxfuuna min qablu la ñu nëbboon bu njëkk lan moo tax ñu nangu waxal seen bopp xam nga fële da dañu ne wallahi rabbina ma kunna mushrikin ñu nekk ñu woon di bokkaale yàlla fii yàlla ne bal bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qablu li leen indil wax ji kay mooy li ñu doon nëb nëbb démb moo feeñ tey nit ku ne ci ñun na xam ne li muy def di ko nëbb bés yàlla dina ko feeñal aw yawma isin tuaraduuna laa taxfa minkum xaafiya bal bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qablu xoolal li nga def ci àdduna yépp yàlla def ko ci sa téere jëf nga ñëw yàlla ne la iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba kon lépp loo doon nëbb rek ndeke marqué nañ ko ci sa téere jëf ndax am na malaayka yu ànd ak yow kon ñun dëkk bi ñun réew mi ñun àdduna bi ñun nit ñi ñun jullit ñi surtout nañuy nëbbaloo xam ni mbaax la ëllëg buñ ko feeñalee muy ndam waaye nëbbaloo xam ne mbon la ëllëg bu fe euh, feeñee gàcc dina am te yowmal xiyaam faj fa gàcce yombul sa film yépp ñu tegal la ko nii yaa fi nekke woon ci àdduna muy gàcc bu ne weng nga ne lii fu ma koy waxe ñu ne la dara desul lu dul sawara yal nañ ci yàlla musal bal bada ma kaanu yuxfuuna min qablu lépp lu ñu doon nëbb feeñ na te sax yàlla ne balaa nga xam ne ñii dëgguwuñu ma wax la seen misaal walaw ruddu su ñu leen delloowaatoon ci àdduna itam <laughs> la aadu kon ñu delluwaat lima nuhu anhu li leen tere woon mu ne gis nga ñii di wax nii naan bu ñu yàlla baale suñu yàlla dimbale suñu yàlla delloo dañu gëm alquran gëm yàlla mu ne ñii soo leen delloo ci àdduna suba ñu delluwaat ci seen melokaan bii senik mbugal kenn du ci yedd kenn ndax dañ ko yeyoo ndax ñooñu loolu dafa nekk ci ñoom gis nga naankat boo ko jowul xaalis jëndaloo ko naan mayoo ko mu génn bés bu maree naan ku mu gis agressé la rey la nangu xaalisam dem jënd sàngara naan buñ ko tëjee kaso ngir yàmba walla sàngara ci biir kaso bi la koy jënde di ko tuxaat wala di ko naanaat ci biir kaso bi waaw waaw walaw ruddu bu ñu leen delloo woon ci àdduna la aadu lima nuhu anhu kon bokkaale ba ñu leen tere woon ak weddi alquran bi ñu leen tere woon ëllëg bu ñu delluwaatoon àdduna loolu mooy nekkaat seen manin ah loolu yéeme na loolu dey yàlla buñ ci bokk ndax ñooñu mel na ni ñoom dañoo am njëppiteeg yàlla loolu ëpp naa bokk ëpp naa itam bokk ci melokaan boobu wala ruddul adu liman huwa an nee na wa innahum ñoom la kaasibuuna waaye nar lañu li ñuy wax amul du dëgg dañuy fenn waxuñu dëgg boo leen delloowaatoon nii léeg nga jël nit jële nit ci dara ñëw fekkaat ko ci nga ne diw xanaa kii du yow nga jëlaat ko tey suba nga fekkaat ko ci nga foofu ba ba muy faatu saa yoo ñëwee ci nga koy fekk ndax dafa koronik ci lu bon kalla barrana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun wa innahum la kaadibuun wa qaalu ñu ne in hiya lii du dara ay dund maanaam dundu bii nii illaa xayaatuna dunya ñoom bi ñu nekkee ci àdduna dafa am lu leen jayoon dañu ne in hiya illa xayaatuna dunya lii ñuy dund bi ñuy dund ci àdduna ni nga ne laandu gi dund nii ci àdduna bi dund àdduna rek la wa ma nahnu bi ma baansi bu ñu dee du dekk bu ñu dundee laandu daal dund Sénégal dund ci àdduna suñu dee jeex na xam nga xam nga ku jàpp boo dee jeex na nooy def def lu la neex kazalika boroom alal bi boo ko indee ci jamono ci tafsir boroom alal bi jàpp na ne alalam tax na ba lu mu def mën na ci génn boroom ndombol tànk bi euh, yenn sëriñ yi ak ñu mel ni ñoom tax nañu ba yaag ñu yaakaar ni seen pouvoir may na leen ñu def lu leen neex te du mujj fenn parce que bu ñu gëmoon ne xisaab am na kon am na yoo xam duñ ci dugg in hiya illa xayatuna dunya ki mën a rey nit jël alalam ki mën a fekk alalu nit defar ay kayit ba nangu ko ki mën a jël li ñépp moom lekk ko kooku bu gëmoon ni yowmal xiyaam am na du taxaw ci loolu in hiya illa xayatuna dunia wa ma nahnu bi ma waasin am na ñoo xam ne ba tey ci kaw suuf loolu mooy seen jikko mooy seen philosophie tara boo gisoon yow muhammad is mu bés bu ñu leen di taxawal gaaral leen ala rabbihim ci seen kanamu borom ah la raayta amran aziman kon nga gis lu yéeme gaa yi boo fekkee fu ñu leen fangee dajale leen indi leen ci kanamu yàlla taxawal leen kon nga gis lu rëy ku fekkee loolu fekkee lu rëy ah qaala ñu wax leen ni ci làmmiñu malaayka yi yedd leen alaysa haada bilxaq alaysa haada bilxaq yéen ñi waxoon ne bu ngeen dee jeex na du ngeen dekk ndax dekkil bi ñu leen dekkil ba ngeen taxaw ci kanamu yàlla ndax mu dëgg ñu laaj leen ko laajuk yedd tawbiixan ah xakay wallaay alaysa haada bilxaq ndax dekki amul ñu ne axa ah, kay ndax taxawu leen ci kanamu yàlla ñu ne axa ah, kay am na de te ñoom ñoo ko weddi woon ku gëmul dekki mën na def lu ko neex qaalu ñu ne balaa axa ah, kay am na de wa na giñ nañu ci suñu borom ni lii ñu doon weddi day am na te mooy dekki gaa ngi nii teg nañ ci bët qaala yàlla ne leen fa suuqul azaaba suubu leen ci mbugal bi nuur leen ci mbugalu sawara wax ji bëri na warul yàgg fa zuuqul azaaba lu leen ko indil bi ma ci sababu la nga xam ni kuntum takfuruuna nekkoon ngeen di ko wedd yàlla kon ëllëg li ciy jànge nit bëri na loo weddi mu gaañ la du nekk ca bés ba waaye mën na nekk après waaye dinga xam ne conséquence li la dal loolu moo la ko indil ñii nag yowmal qiyaam dañ ko gëmul woon gëmuñu dekk gëmuñu taxawaay ñu dee dekki jot ñu dekkil leen taxawal leen ne leen waaw ndax dekki bi ngeen doon weddi du dëgg ñu ne xakay wallaay dëgg la yàlla ne acca soobu leen ci mbogal gi ñu fayee leen ko sababu weddi bi ngeen weddi woon yenn weddi yi jaru ko de nit ñi nag ci jamono dañuy weddi rek weddi rek benn waaye mu ne ma xanaa yàlla xanaa du yàlla du lakk jëmm xaw ma yàlla leer lay lakk am na nu mu ko defaree ba mu mel ni daal yaramam daal sawara waru ko laal yépp ci xeetu sikki sàkk yàlla na ñii dem sawara maa leen di sóob lakk leen ba ñu ñuul defalaat leen yeneen der yu bees yu sawara mën a jekku waaw kullama nadjat juluduhum baddalnaahum juludan gayraha li yazuuqu azab gis nga alquran soo ko jàngee gëm ko ànd ak moom soo amatee loo ragal ci àdduna dañ la war a gas suul la te booba yaa ngi dund parce que amoon njariñ ci société bi ëpp na def ku ko jekkuwul nar laa jekku ci kaw suuf bu ko nangu yow mi jekku alquran bul nangu n'importe kii ñëw jekku la mukk yàlla dina la ko laaj te dinga am yedda nga ndax bëri yi ñuy def ci kaw suuf tiital nit ñi minimiser leen xoqatal leen ngir wàññi leen ci rigueur bi ñu nekkee ci wàllu dëgg ak yàlla boo ci bokkee da ngay perte da perte fa suuqul azaba bi ma kuntum takfuruun yàlla nee na xad xasira perte na ñan ñoo perte alladina ñi nga xam ne këzabu weddi nañu bi ci dajek yàlla ñi weddi ne yowmal xiyaam am na dekki am na dajek yàlla am na ñi weddi loolu yàlla nee na perte nañu ñooñu dañoo perte yàlla buñ ci bokk xatta ida jaathum ñu nekk fa di weddi ba mu dikkal leen assaatu bis pénc baxatatan ci mbetteel ngay weddi di weddi ba nga xëy ñu ne la yowmal xiyaam taxaw na cey amatul rectification maanaam li ma defoon baaxul xaaral ma defaraat ko amul may leen ma ma dem te ñëw amul ma delluwaat amul dama juumoon léegi dinaa jubal yowmal xiyaam taxaw na daal fay rek moo des baax baxtatan moo tax nga nekk ndaw comme senegal ni ñuy def nga ne damay doxal sama ndaw kan moo la wax ne di nga nekk mag boo nekkee mag nga ne damay xaar ba màggat kan moo la wax ne di nga màggat ak ndax soo màggatee walla nga nekk mag ndax la nga mënoon ci ndaw dinga ko mën fala yàlla soxlaa ñëw bi am juróom ñeent fukki at walla téeméeri at nga nar a jox yàlla sa bopp du yomb de waaw moo tax damay doxal sama ndaw lépp luy ñëw ci àdduna dee day ñëw ci mbetteel yowmal qiyaam day ñëw ci mbetteel sëriñ bi loo xam ne dafa ñëw xam nga nit fecc na ba ci kaw seen mu daanu dee nit futbal na ba daanu dee te nee nañu nit nu mu dee rek noonu lay dekke ki football ba dee wala mu nekk ci kaw seenu musique di fecc ba faatu boo ko waxal ne boo booba demee da ngay dee kon mu waajal ko waaye nag dafa ñëw rekk ne ko kirtim bett ko ndeysaan <coughs> kazalika yow mi dox ci kaw yoon yow mi nekk kër ga yow mi nekk liggéeyukaay ba yow mi nekk ndaw yow mi nekk mag yow mi doon màggat ngay góor wala ngay jigéen de ak tout le mën na ñëw baxatatan ku ñu ne diw faatu na ñu ne loolu kañ la <laughs> xam nga loolu kañ la lu ko waral tiitaange ak mbetteel mosoo dégg fu ñuy wax ne diw suba lay faatu ah ah faatu na tey faatu na sànq faatu na démb faatu na barke démb waaye suba lay faatu aa ah, ah. yowmal qiyaam it ni ñu yàlla fas yéene bett yowmal qiyaam moo tax waxul kenn kañ la baxtatan ah buftu wol ñëpp faatu yàlla taw ba doyal buftu wolaat waaw wol ñépp xëm jaxasoo mooy iza zulzilatil ardu zilzalaha wolaat ñëpp faatu wolaat ñëpp dekk yooyu yëpp baxtatan ci mbetteel lay ñëwee kenn du wax ne yowmal xiyaam suba la nañu takk suñu bagage nañu préparé ñi ci bàmmeel ñu ne yowmal xiyaam dekk bi suba la nañu préparé déedéet lépp dafa ñëw ci mbetteel baxtatan bu ñu leen suba ngay fayeeku salaire guddi gi doo nelaw fekk téye saleer bi ba def li nga war a def yow sa yowmal xiyaam nekk sa kanam sa dee nekk sa kanam te yépp fas laa yéen a bett amul benn annonce bu ñëw ci yow te kenn mësul gis jeexital boo xam ni day wane ne dee jaaxal na la yowmal xiyaam jaaxal na la loolu fu mu jëm ndax ki am léppam mën naa am sax boolewul boppam ci ñi war a faatu léegi ndax àdduna jekku na ko waaw léeg nga jekkal déegi ci ay nit nga fàtt sa bopp ndax daraja bi nga am dayo bi nga am alal ji nga am waaye de tëral na ku ne te lépp ci mbetteel la yowmal qiyaam it ñépp dañuy jog ci surprise baaxatatan waaw waaw qaalu ñu ne yaa xasratana woonaa suñu rëccu xasra bu amul tomb rëccu lay firi bu amul tomb rëccu lay firi boo xoolee xasra xasra boobu fàng waaye xasratana woo naa suñu rëccu nadaama mettitlu ak rëccu ala ma farat na ci lan lañu ñu rëccu nit lu mu def dina ko rëccu su dee lu baax dina ko rëccu ëllëg day wax ni su ma yëgoon yokk ndax lii ma yàlla faykat ëpp na ci li ma doon def bu doon def lu bon it dina ko rëccu ndax dina ko jural mbugal dina waxal boppam ne su ma sañoon kat du dugg ci lii ba mu indil ma mbugal ñaari rëcc moo am benn bi moo baax benn bi moo baaxul aljanna bi yépp su ma yëgoon gën a jaamu yàlla lool rëccu la mais baax na bi baaxul kay mooy su ma yëgoon bañ a def bàkkaar ba ñëw sawara nga nekk ci dëkk nit ñi di la jay ngay xuloog nit ñi xeex ak ñoom duñu la wax dëgg ngay tongook ñoom koo man duma koo jekku jël alalam koo ëpp xam-xam yàqal ko dundam kenn du la wax dëgg nga dem ba biir sawara nga ne yaa xar yaa xasratana ala ma faratna rëccu naa li ma sàgganoon fii ñu bari xam nga ñu bari am na ñu jot pour def lu baax mais taluñu ko ñu bari am nañ jot pour yokk seen yiw waaye taluñu ko ñu bari am nañu jot pour fekkee jataay bi dama génn démb am fu ma dem ma gis benn góor toog nii di jàng alxuraan heure bi la woon démb daanaka ñi toog nii di puus ay carte mariage ñii di mariage fii kii di jàng alxuraan fii te kii nee na julit la kii nee na julit la kii nee na mu ngi ci weeru koor kii ne mu ngi ci weeru koor kee ngi carte kee ngi jàng alxuraan yaa xasratana xam nga temps bi nga toog di carte trois heures ba fu la sob boo ko jéemoon ci alxuraan wala nga déglu ko tafsir walla nga déglu ko waare moo gënoon boo ko deful nag bés boo taxawee ci géew yawmal xiyaam di ne su ma yégoon keroog ba may carte ca weeru koor ga ma jàngoon alxuraan. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor